aliment de bétail bi it jot nañ ci ñu ngi koy séddale priorité na mooy ci xar ñi nga xam ne ñooy dundal daral bi mooy jula yi ak teefanke yu mag yi ñoo la ñuy def focus ci priorité loolu itam ñu ngi koy séddale amul xàjj ak seen amul tamit réew boo jógee wala déedéet na fekk rek nga wàccee ci daral bi nga yore ay xar loolu tamit ñu ngi ci et nous wax ne loolu yëpp nag le premier ministre daral bi 4 hectares 200 aar Nous avons impacté d'un hectare de dépôt. avec le préfet de Tiki. l'administration administration territoriale monsieur le gouverneur ñu accompagner ñu Nous am lu ñu accompagnement social. Nous avons eu les ngay gis loolu mooy bâtiment on a eu des blocs de toilettes Nous avons eu autour de 15 blocs de toilettes état bi également nañu également des toilettes mobiles donc en matière d'électricité d'éclairage euh, nous nañu également le ministère de l'élevage parce que ngi également le secrétaire général du ministère de l'élevage nous ngi fi du top, même te même ñu par téléphone pour faire naka la ñu avons Le ministère de l'élevage nous nañu 20 lampadaires solaires Nous avons ak suñu projecteur projecteur est benn bu ci paane de ji le verre de Dalifort suñ ko ko ak son équipe nous ñu

président du conseil d'alors Mamadou Dia moom moo leen fi intervention de Thierno Seydou Nourou Tall biñ fi 40 nous ji ëpp nañu 4000 c'est faire